salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bismillahi rahmaani rahim waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu leen ziar leen tatagal di sant yàlla bu baax di ñëw rek ci loo xam te ni xëy na du actualité sax mën naa ko wax ndaxte eh, ki ko wax jërul muy yëngal kenn wala kenn di bàyyi xel ay mbiram ba muy nekk actualité waaye dafa tolloog ni comme dañoo nekk ci àddina boo xam te ni eh, information day law di dem. te ñu bare bari léegi mbuum may mi fëgg na fëkk na leen ba duñ xam fi ñuy taxaw ci mbir bu amee moo tax ma bëggoon a leeral ay kàddu yu gàtt rek ci jëmm ji ñuy wax Omar Diagne Cheikh Omar Diagne nga xam te ni làmmiñam la daas waxtu wu nekk rek lu ñaaw lu mu xam muy yàq ko tarixa yi rawatina tarixatu Cheikhina Cheikh Ahmadul Xadim Euh, gis ngeen ko révélation yu mujj yi mujjee wax ci euh, blanchiment d'argent bi mu leen tuumaal dégg nga li fi waxoon Sëñ Tuubaa dégg nga tamit li mu fi waxoon tamit ci ni murid yi dañuy saagaawal dañuy xastaate wala yu mel noonu moom nag personnage am dafa amul solo ndaxte doomu aadama sax du ñàkk solo waaye moom jikkoom yi mu yor moo amul solo ndax euh, keroog bi nga xamante ne nii ma nga teewal fajiri ba wax waxam ja ba murid yëpp riir wutali ko bëgg koo bëgg koo sànq man maa dem def intervention yéeg ci kaw Oustaz Assane Diouf waxtaan ci ak moom ak ñoom Moustapha Diop ñu yéeg ci kaw ma waxtaan ak moom ni ko li ngay def nii amul amul amul amul njariñ ndax ay aw nit nit wax ci xam-xam ak lu lu jub te bañ yee fitna moo ëpp solo foo toll di yee fitna waaye lay xamal ne li muy wax nekkul ci moom keroog bi ñuy wax ak moom eh, mi ngi lox tiit bay lox. moo tax bu ñu ko dëppee écran yi ak caméra yi rek ci la nekk di coow waaye xam na dëgg-dëgg lan mooy po poids bu mouridisme waxuma nag pour ménager ko wala dara waaye dama ko bëgg a indiwaat ci recadré ko ci xam-xam euh, Omar bu fekkee da ngay daawa di woote ci l'islam appel islamique yonente bi alayhi salaam ay juif la dëkkaloon ñetti façon façon juif yu bokkut la dëkkaloon Madina banu nadir banu xayin xaa ak banu xurayda waaye musta yëkkati loxoom lor leen te ñoom ay juif lañu woon dëkkoon nag chrétien mosu leen a lor moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam comme nee nga mooy sa référence ñun mooy suñu référence ñun ñëpp tamit suñu mag ñu baax ñi fi nekkoon tamit mosu ñoo taxaw di loraate ci seen biir waaye sa làmmañ wi nga jël fas yéene di attaqué yoonu murit ak di attaqué nit ñi nga xam te ne ñooñu ci diine yi xamal ni maanaam la ibnu asakir waxoon wax wax ni eh, alam axi wafaqani wa iyaka anna luxuuma al ulamai masmuuma ba wax ji jeex mu ni yow sama mbokk maa ngi lay xamal ni yàlla na la yàlla defal tawfiix defal ma ko xamal ni yàpp wàlli ak boroom xam-xam yi dañ ko tookee kuy tàbb ci seen der sunna suñ borom ci sa kaw xamees na ko te mooy bala ngaa faatu da nga torox kon nag maa ngi lay wax ni bu fekkee appel islam bi ngay wax na ngay woote ci diine ak lislaam nga bàyyi xel ni diine ak lislaam li ci jiitu mooy jikko muy éthique ak moral nga am jikko ju rafet bàyyi xastaate bi ak wax ju ñaaw ji ngay wax amul solo bu fekkee ci xam-xam ngay wax boroom xam-xam yaa ngi fi man maa ngi fi ak ñeneen ñu ëpp xam-xam foofu ñëwal ci palaato yi ñu toog waxtaane ko la la lent ci yow nga dellu ci ginnaaw nga xam ne dangaa réer waaye amoo xam-xam jumla mu fii de xamoo ko mënoo ko mënoo koo wax amoo jikko ndax foo waxee xastaate mbaa saaga kon la la war mooy toog tey sa bopp tey sa làmmiñ waaye nag li ma ci gën a métti ci mbir mi mooy yenn xeetu murid yi nga xam te ni ba tey ñu ngi ànd ak yow ci bokk ay groupe ak yow bokk ay kuréel ak yow te ñoom ñu xam ne yow foo toog yaa ngi xas sariñ Touba yaa ngi xas Alhaji Malick yaa ngi xas wàlli yu yàlla yi yaa ngi xas Cheikh Mouhamadou Mountakha yaa ngi xas kilifa yu baax yi di wax sa wax ju ñaaw ndax li nga mujjee wax barki démb daan ni ab taalibe yi nekk extérieur diggante tamxarit ba gàmmo kooku ak màggal kon kay yow murid yi ngay waxal rek ak tijaan yi kan nga gis ci murid yi mu def blanchissement d'argent ñëw jox ko suñu sëñ bi wax ci kenn nga ni dañuy jëm génne un milliard ñëw blanchir ko dox sëñ bi ni ko un milliard bi kat euh, léwut dama bëgg nga def ko sa tour def ko sa tour mu nekk addiye waxal ki ñu ci gis mu def loolu man addiye un milliard sax dama ko gisu fi ne li ma gis taalibe yi di ko joxe mu ñu nekk New York ñu nekk euh, Europe ñu nekk barab sàngam ak barab sàngam yëpp boo ko xoolee matu sa un milliard tey xanaa yow pays pays pays européens yi sax nga njëkk tuumaal parce que <laughs> blanchiment d'argent xanaa yaakaar naa tubaab yi wees nañ foo xam te ne da ngay génne alal di ko indi naan addiya fekk da ko blanchir kon wax ju ñaaw rek ngay wax ak di yàq amaa nag murid yi dañuy saagawaate ca force lañ gëm dañuy xastaat dañuy nangam yow kon lan ngay def yow xastaate ngay def Omar demal jàngi boo boo boo jàngee nga yar sa bopp jàng diine yar sa bopp xam ni ñuy jëflantee waaye sa làmmiñ wu ñaaw wii nga téye. fas yéene di wax rek di ànd ak ay kuréel ak wax di coow di wax te li ngay wax lépp xamoo ci dara naan ay lu ne nga dugg ca man nag xam fa nga jëm moo tax ma lay teel alerte ndax fa nga jëm baaxut baaxut mystiquement baaxut batinement baaxut saayir ci saayir tamit parce que lu ëpp tuuru nag te yoonu murit kat xajuñ ci yow kon nag booy boo nga téye sa làmmiñ wi la nga bëgg nag mooy xëy na nit ñëw gaañ la nga génn dem ci pays européens yi wala yu mel noonu nekk activiste comme ni ngay def nii loolu nga bëgg waaye duñ la ko may duñ la ko may liñ bëgg nag mooy nga téye sa bopp bu fekkee daa am tarixa boo bokk yamal sa tarixa boobu téye sa bopp te bàyyi ñu sequñ ko ak yow gisuñ gisoo benn murid bu ñëw ma mabda yéen ci njëlbeen ñëw di la attaque mbaa ma lay wax man mii di wax ak yow keroog bañ la bëggee toroxal ca Walfadjri man maa taxaw def intervention waaye intervention yi ma doon def tey ña ko fekke woon ñëpp nee nañ ma gis ki nga doon defal intervention mi ngi nii tey gis nga dégg nga li mu wax dégg nga li muy wax yow lan la muridisme def lan la taalibe yi def lan la Sëñ Tuubaa def li nga jàppal Sëñ Tuubaa lan la yàbbi ko ñu xam ko sa wax ju ñaaw ji téye ko wax ju ñaaw moom ñëpp ko am beneen bi mooy yéen murid yi nga xam te nii yéen a ngi ànd ak moom di bokk ak moom ay kuréel dama jàpp ni ñaari mbir rekk mën a am da ngeen a xamut da ngeen a xamut xëy na kon ngeen war a dem xamlu ji ba xam ki ngeen di àndal mooy kan ak li muy wax Sëñ Tuubaa mooy lan wala boo xam ngeen waaye xëy na dangeen xamut kan mooy Sëñ Tuubaa kon su ngeen xamoon kan mooy suñ tubaa ak lim def ci yoonu yàlla ak lim liggéey ci lislaam ak ni ko daan bëgg a suufeel na leen yàlla toroxale ak nañ narmeeloo yaakaar naa bu ngeen xamoon loola dangeen dem xam ne lépp lu baax Sëñ Tuubaa am na ko ànd ak koo xamante ne nii day xas suñ tubaa mbaa muy xas doomi suñ tubaa yi mbaa muy xas yoonu murit nga leen fas yéene ànd ba pare wax ne yéen ay taalibe ngeen ay murit ngeen loolu am yaakaar naa ku koy wax dégg naa tey rek koo xamante ni kuñ xam la ci seen ndaje moom muy wax di ko tudd di ko tagg naan Cheikh Omar Diagne ñëw na di ko tagg di wax te kooko nee na am murit la loolu mooy lan kuy saaka suñ tubaa nga koy yëkkati nga koy kaweel di ko jël di ko teg ci kaw loolu yaakaar naa amul lu ko gën a ñaaw te eh, waxam ju mujj ji boo ko seetloo bis yi ko daraloon yépp mooy ñi dalal activiste ak saakat yi ñoo ko daraloon ci wax mu mujj ji mu wax wax ju bon jooju wax ju ñaaw ju nekk mu wax ko naan yoonu mu dañuy blanchissement ma blanchissement d'argent bu fekkee da ngaa gis addiya yi te xamoo mooy lan xamal ne addiya yooyu liggéeyal Sëñ Tuubaa la yooyu eh, sëñ bañ koy jox suñ mun taxaa soxlaam yaakaar naa ma sax soxla soxlawul dara waxal na ko boom nee na soxlawu dara kon addiya yi lañ cay def gisa nga ko sa bopp université yaa ngi fi daara yaa ngi fi kër sëñ Tuubaa yaa ngi fi ndimbali néew ji doole yaa ngi fi zakat house baa fi ay barab yu bari yoo xam te ni fa lañ fay financé maanaam ñu fi li ñuy joxe motul sax ceeru lañ fay financé te loolu suñ mën taxaa moo ko yor ci dépense boppam yoonu murid ñoo ko yor seen dépense bopp nga taxaw di wax te xamoo li ngay wax yàlla na yàlla gindi yàlla na yàlla ci yoon yàlla na yàlla defal tawféex ba nga bàyyi sëñ Tuubaa ndax sa mujj rafet duñ ci duñ ménagé nit waaye comme wane nañ ko ci xam ndax ñun xam-xam moo bu ci ñëwee xayrun bu fekkee xam-xam ko itteel moom na ñëw man invité naa koy débat mu wax faay yi mu gis yoonu murit nga xam jàpp na ni moom dafa wuuteeg lislaam ñu débat ci moom moo wan ko ni amul dara murit yu wuuteeg lislaam murit gi suñ tubaa indi dara lu wuuteeg waaye nag ay saaga ak xastaate moom du ma ci débat ak nit wax bu continuer lii nag ah taalibe yaa ngi fi taalibe yi nga xam te ñoom am nañ bopp xam nañ koy suñ tubaa ñu ngi fi bañ dajeeg moom lañ ko waroon defal wal fajiri ma taxaw ci ni ko buñ ko ko def bu boobaa moom moo xamal boppam dara ko gisal boppam